asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu mbokk yi Astou Seye ngi nii yaay alxaaji Mbégi Diop borom Mame Ndokh TV Astou Seye Mbaye ngi noonu borom mam ndox TV ngi noonu alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi taalibe Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si almuktoom baa ngi noonu mbokk yi doomu yaay ndox jaa ngi noonu tey ji mu ñëw julli si àjjuma jàkkaarloog Cheikh Seydi Aboubacar si yaay booy maa la bëgg yaay booy jëtam daa moom kër yaa ma leen gënal wax yaay booy ginnaaw yàlla ak yonent bi yaay sama borom bu la neexee nga ray ma bu la neexee nga saraxe ma bu la neexee nga sanni ma bu la neexee nga sànni ma ca mbalit ma dama laa bëgg sa tam daa moom kër barke yonent bi bi àll bi ne tat kenn ñemewu fi yow dong yaa xuus daal kenn ñemewu fi mbaay waali maa ngi lay sant di la gërëm di ñaanal yalla tey bu ma nit xamee ginaaw yàlla yow la mbaay waali omar joojaan tamaali ganna parma jigéen biram farba samba sa neex sa penda murja réer xàllak ma siin wal jooja jaxaw mbaa ba jël kandama ma daa tëngal liggéer barke yonent bi dama laa bëgg bi ci des li ma gën a neex mooy da ngaa rafet. tu es beau. je t'aime dans mon cœur.